Touba Touba Touba Touba Touba Touba Touba li sax bi qad kaana mu'tazima wa wal muna wal muna ci Yàlla jël na baayu soxna waalo way àddunaa ngi ko wóolu cay yàlla jël na baayu soxna waalo way àddunaa ngi bu leen ko wóolu bismillaahi maa ngi tàmbaleeti ci tuddu yàlla mi may marsiyaati alhamdulillahi ma buur bi cant gu ànd ak jéggaloo tuubim te dellu sant yàlla muñ ay dogalam muñ gu rafet te jéem a jëf ay ndigalam te sant Cheikh Bamba borom jumaa ji war julit bu wér mooy waaji bismilaahi maa ngi leen di jaale jëwriñu Bamba borom kamaali moo fi desoon ci doomi Seexu Bamba bur yàlla yóbbu ko mu fekki Bamba moo fi newoon xalifatul ilaahi moo doon xaadimu rasuulillaahi moo yeesalaat tariixatul muriidi ba ñëpp xam murid xam mariidi moo dalaloon xel ba ñëpp jaaxley waaye de tey xol yépp bég ci loolu cey mbàkke balla yaa matal liggéey zaman bi yaa fi roy yonnen bi liggéey bi na xol yépp bég na gi tax na xol yépp deena cey yàlla laa ilaaha muhammadun arsalahul ilaahum cey yàlla laa ilaha illallahu muhammadun arsalawal ilaahu cey yàlla jël na mbàkke balla ay borom gota mbuur dem na nekk solom cey yàlla jël na baayu soxna moomin naqaru tiis wi maslaam ci réew mi ku baax ka dem na ni ba génn àddunaam wallaayi lii de metti naa ci àddunaam way fu nu jëm ay fu nu jëm xaw ko man tey fu nu jëm ku ko fi xam nañu ko wan suuf na bàyyi soxna waalo mbàkke way àdduna tukki ku yebu jëkki mooy sam su fatli moo fi roy yonnen bi jant bu soowee kenn du ci dun bi moo leeraloon biddéew yi leeral weer wi moo leeralaat jamono xallu yoon wi keroog ba yonnan ba di waat jamam ga lay tëkkaleeg sa dem gi Mbàkke wàcc nga al yawma la yàlla wax ni diinakum gaayo di bég xamuñ li tax ndekete day tàgge keroog yonent bi am na ci ñoñ dégguñ li xew ci laaya bi xibaar ba tas ñu naa yonen ba faatu na kenn mënu koo dégg keroog Madina faaruxa yor jaasi tanaa wax ni tey yonen bi faatu na ma di lay rey sayyiduna abubakar siddiixu moo ko dalal keroog teewul ñu yuuxu Aboubacar jooy na saaba yépp maase yi tuuru saaba yépp maase tiit naa jëm muhammadu rasulullahi moom lañu xam yàlla mi jël muhammadu rasulu moo yóbbu Seex Saaliw maa ko yàlla mi jël muhammadu rasoolow moo yóbbu seex saaliw maa koolow keroog ba muy gana si njaareem addunaam lañ xam ni kii mooy mujj leeral addunaam bamba ngi toog keroog ci suuf di waxtaan ak seex malaamin jóob ba woon ñuy waxtaan am ndaw ñëw ci bamba dal koy deey ni soxna faat jaxate am na gantay mu jël loxoom bu tedd booba mbàkkeem bindi ca suuf asaali a cey mbàkkeem muhammadul amin dem jël xalimaam bindi ca ay bayit wér jox ko xadim ab xaalana bi fadli saaliha baaxin lana jaada bi saaliha أبقاه سمسا في سماء داره يسخل منه وجهه كاليا أبقاه مملا له هديا مبركا مساء فاليا am na bisit sëriñ bi ñëw di soññeen ci jataay sëriñ bi doon ku jataay ba Seex Saaliw Mbàkke fam nekk ca biir sëriñ bi ñëw fekk ko fa ba mu ñëwee toog ci wetam ñu puus ko sëriñ yi saa jën ko xaw a puus ko lam jublu woon ca puus ga mooy ngiruk teral Seex Bamba ñëw am fu mu toog fu jàpp ndal sëriñ bi xëccaat ko mu ñëw ba jige koom Isaa ngi toog keroog booba mu dal ni koom isa xanaa xamoo ni kii doomam gaa yépp xool ko xam ni Mbàkke moomam keroog Serigne Saa daa génne junni jox ko Serigne Saaliwu teg dal ni ko warlu naa ci yow fu ma la gisee danaa la jox ab junni Mbàkke danga fës diggante yeeg Seex Bamba tey gis ko du sama kumpa man Isaa xam naa ko Seexul Xadiim bindoon na bis ab leetar jox ko Sëriñ Mbàkke Jaxate kay mbër dal ni ko foo xamante ni Cheikh Saaliwoo wattu na alxuraan jox ko ko Saaliwoo keroog ba Cheikh Saaliw wattu alxuraan Sëriñ bi woo ko jox ko leetar bee woon dal ni ko Seex Bamba sa moo la ko jox moo ni ma woon soo mokkalee naa la ko jox sëriñ bi yër leetar ba xam la Bamba wax ba noppi seex ko yëy ko wannu ko tarax ku nekk ñëw na bëgg xam la mu ca wax sëriñ bi lànk kenn xamul la mu ca wax bu doon te kuy tasaare kon mu siiw wala mu bëgg àdduna kon de yëf ya siiw wallaay yàlla moo ko ñor bëggul leneen lu dul lu neex yàlla bëggul loolee feneen daa wax ni moom lu dul yàlla boroomam amu caag digle akuk tereewam moo roy Serigne Touba bu wér ci aw doxiin roy ko ci ay jikko bu wér aku moo dëddu àdduna bu wér te koow rusloo na àdduna ak banam ba not koow rusloo na àdduna ak banam ba war koow gàcceel na leen gàcce gu rëy xam nañ ko mësula topp bakkanam ba neex wala mu def lu dul njëriñ mbaa luy jeex fu ma sa toog saytaane daw ba sori koom fu sa jëm saytaane dem feneen ba koom saxal di jaamu yàlla ak liggéey fu ma sa nekk loolu mooy mbiram yi di bay di jox yàlla bu wér fu mu tollum sëriñ Saaliw Mbakke masula bay mukk di yar ay kollum lu sa bay jox na ko Cheikh Bamba bu wér jox gu rafet gu àndul waxati far waab li yal ma say awal amal asaali allasi yukammilul amal noonu la mottalee liggéey bi Tuuba te lii ma wax ñëpp a ko gis ci Touba defar na dëkk bi defar na xol yi na yoon wi Mbàkke moo jëf-jëf yi moo soppi waat sooroli yee salaat ko mar bu jumaa ji teg ci atalaat ko Touba ngi mel ni capitalu réewam te lépp sang bi ci def njàmbaaram lu weesu lii na daaray xel kom muy fukki daara ak juróom ci biiram la fay donga ci fukki daara yeeg juróom jigéen a fukki junni mbàkke mooy xadim ñi wattu alxuraan ba bind kaamil ñu ëpp tey ñi wattagul ba mokkal ñu jàng it ba mat sëkk tey ilimaan ñoo pu fopp Mbàkke moo doy kéemaan moo sanc xabbaan sanc got sanc njurul moo sanc ndooka ak lagan ba jàpp moo sanc ngaaru sanc tuuba moo sanc ñaaru Mbàkke moo doy kéemaan lépp fanweeri daara ci réew mi Sëriñ Saaliw def na ko fi muy lu yéeme jéemu ma it di wax mbaaxub sëriñ bi ci aw kayit mbaa di ko lim ci sëñ bi ku a wax day wax wax ba jeexal ku ni day bind du mas di yeggal liggéey bu mujj bi mu sumb tuuba kenn masu koo gis ci fudul fa tuuba def na ja fukki milliard ba tofal caam ñenanti milliard mbakke moo raw gaañam mu doora woo taalu be yépp maase kenn gisatul lu dul dem fa ziyaar si ba liggéey bi mujj dilim yaatum téeméeri milliard ba tegal yaatum mu jël ko jébbale liggéey bi tàmbali ndekete yow sëriñ bi doo ko yeggale sëriñ bi nax nañu ba génn àdduna wallaayi lii de metti na ci àdduna ca yàlla jël na baayu soxna waalo way addunaa ngi ko wóolu waxtaanu mujj wi mu def ci korite ba ñépp bég ndekete nar na joote ndekete Seex Saaliw moom day tàggoo tàggoo la wax kenn xamul nde toogoo tawat ji bam ko daanalee ca Tuubaa ñu woolu Seex Saaliw Ture Tuuba mu nekk faak moom rek diir bu yàgg lool nga xam ne ji sëriñ bi it du yomb lool wax na ko fay kàddu ma xam ca tuuti naa ca bérél la ma ca xam di tuuti nee sëriñ Saaliw Ture booba mu jël loxoom teg ko ca kaw dënam ba mu jël loxoom bés ko ca kaw dënnam mu wax ay atam yu wér ca booba juróom ñanant fukki at yu teg juróom laa am ci àdduna te jox naa ko boroom loola di tuut la ma ca xam ci wax jim Sëriñ Saaliw la dénk wax jim laa jon na moo xam ni Seexul Xadim moo ko fi bàyyi woon Sëriñ Bamba du ñu dal di wër mbumma ca biir bagaas yam kenn gisul yére ba ngir bagaas yam ñu dal di yónnee kër sëriñ Suwaybu ndaxte amoon na fa ñu andi boobu ñu andi boobu fekk bi feeñ nam mu boole ñaari yépp sëriñ bi waañ na am nañu wax ni mbubu yooyu ñett la am ñu ni ñaar sëriñ bi daal ku yéeme la mu jël alal ju takku lool ci xaalis boole ca ay nag mbàkke bal la doo des digle ñu jàngal xuraan ca Tuuba wàcce faay kaamil keroog ca booba tabaski bis ba del siwaat di aljumaam moom la waxoon sëriñ bi moo am war maam fajar sëriñ bi julli dal di soonu di werd mbàkke bal la fajar sëriñ bi julli dal di soonu di werd mbakke balla nërmal nii la sëriñ saaliwu génne àdduna fajar bisub aljuma de metti na ñu woolu seexu Moustapha mu dal di moomin mu woolu seex saaliwu Touré mu ñëw ñu seexu Moustapha mu dal di moomin mu woolu seex saaliwu Touré mu ñëw ñu dal di nëbb yëf ya kenn yëgul ko ay benn benn ñoo ko yëg waxuñ ko te booba kër ga fees na ci ay nit yu doon ziyaare kenn yëgul mbiram yit fajar ba julli nan jumaate siiwul dem ba timis bu dee ku yëg bareegul sëriñ saaliw ture moo ko waajal ak seexu am sa mbakke ñoo ko waajal guddi xibaar ba xaw tas ci nit ñi kenn ñi mewul di jee ma wax ko nit ñi ku nekk naa am la mbaalu ñàkk la kër gaa nga fees del ñu naa lii kumpala ñu jékki-jékki am oto bu génn ca kër sëriñ saaliwu mbàkke génn ndekete seex saaliwu moo nekk ca tëdd ca gannaaw gaa ña jiitu yëf yuuxu ya ñu door xam ni sang bi génn na duniya mbàkke balla moo ñi yuuxu ya ñu door xam ni sang bi génn na duniya mbàkke balla moo ñi bi diggante boobu metti woon metti gu ngir xam ni mbàkke dem na guddi gaawu ñëpp danoo fanaan si Tuubaa ngi fees dell na xarimaasem ku daw ba jub barab ba daanu sukk ca suuf sa bopp toog di ñaanu murid yi ñëpp maase wër barab ba sukk suuf keroog mu mel ni kaaba ga nit ñëpp maase dal di jàngal xuraan xol yëpp fees rangoo ñi ñëpp yi walangaan ñi jàng ay xasiida ñi yelloo ñii di beral sëriñ bi lool bëggoon na ko sëriñ bi moo tax ñi ñëpp maase dal kenn yënguwul keroog lu dul ci biiru xol bilaayi Seex Saaliwu Mbàkke xam na ni demam gi attanun ko ñun ci fii ñu ne sun jëmm yeeg sun xol yi miisoon buñ la gisul sëriñ bi yow ku nuy cey Mbàkke ñun yow la nu xam yow la nu miin yow la nu am yow la nu gis doo fekki neen bun la mënoona indiwaat ñu def ko waaye lu yàlla def mi def mënul ko lu yàlla def mu war a neexi jaamam faw mu metti nag ci xoli jaamam te yàlla kat lum defa gën lum bañ def te loo fi gis lu man di doon yàlla ko def kon sant yàlla war nanoo te muñ dogal ci sang bi mu yóbbu tey te jëf ndigal kon sant yàlla war nanoo te muñ dogal ci sang bi mu yóbbu tey te jëf ndigal cey yàlla jël na baayu soona waalo way adduna ngi bu ko wóolu bun wóolu àdduna ak banam ci benn bis nan jaamu yàlla xam ni fii kenn du fi des nan jaamu yàlla nag te waajal gan giim mu ñëw te kenn du rëcc gan giim nan jaamu yàlla gan giim mu ñëw te kenn du rëcc gan giim faw mu nañ ko berndeel te soxlawul lu dul sëru ci berndeel buy nocci bokk yak xarit ya di yóbbu hôpital di jox médecin ya munaasa bokk yaa ngi di kër kër yi mu wóor la yow ni doo fanaan ci gi kër kallaa izaa balaqati taraaxiya waxiila man raaxin keroog la raaxiya wa zanna annawoo firaaxu tey ji loo jaamu woon danga ko xeeb ci jëf ji keroog nga door a xam ni jaamu yàlla moo gën lu dul yàlla nde loolu nen la ñu jakti jakte génn kër doo delluwaat yuuxu ya dal mbokk ya naa xanaa déet te buñ sange sang nag di suuli ngay gën a dee keroog la wet ñeeli ñu yeew sa ñaari tànk yeew sa loxo yam tabbal ci biir kamb nga fekki neew ya ba mun këri ma nakiri dal di ñëw laaj la fa jëfoon ci yiw doo mën daw wax nañ ni teppi teppi dal di gaaya ba da koy dégg keroog armeel ya moom la sëriñ Tuuba di wax ca way antar joxarro li gis mi gaaya yal nañ fa ànd sëriñ Tuuba te fa taxaw mu jiitu yóbbunu Tuuba kër ga ñëpp sawar amina amina ne leen amina ci darajay muhammadul amina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin عزيز قدوس ولي

Touba Touba Touba Touba Touba Touba Touba li sax bi xat kaana mutasima wa wal muna wal muna